الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه اجمعين mbokk yi ñuy def suñu borom subhanahu wa taala di julli ak yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonent boobu nga xam ne suñu borom daf ko rek yéen maa ngi ñeelu comme ni ko waxee nii innamaa ana rasulullah man de yërmande laa joo xam ne yàlla dafa maa may kenn waxal ko rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te loolu ci dindin la am alquran su loolu soo ko wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin mbokk yi yónni gi yàlla yëpp Muhammad suñu ci war kontaan mbokk yi sabab yi waral di kontaan ci mooy ndekete yàlla du ko yëral moo tax mu yónni Muhammad loolu nag wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yërmande la lu dul nga nekk ci yërmande yi ñoom fekk yàlla suñu borom boole si ñoom mu yërmande comme ni ko xamee loolu ci waar woon nga xam ne waar la woo xam ne mooy nuqatu bilaaya mooy nuqatu nihaaya waar woon nga xam ne tool la bu ñuy bay ba àgg suuf sa liggéeyam mooy toolu pas-pas mooy loolu nga xam ne yéen yàlla sallallahu alayhi wa sallam da caa def fukki at àgg na xam naa ne moo gën a mën a wax gën a baat yu jub yoo ne bu génnee ci génnee dafa leen ci xol rek ba ko xam na xane yan nopp ñoo gën a am ci ci am waaye yàlla moo dana defal leen mbokk ku gàttal ne yéen yàlla di leen jàngal mu moom muy law moom laa takkali ko ñu ko biir ñu ci wallahi loolu tuuti la par rapport ak li nga xam ne ci loolu moo ko di ko xam ne moo looloo mel mooy gaal gi yàlla loo xam ne yéeg wut wuute nag alquran di xel amul leneen mooy fas fas xam la yan ci fa ko sax ay saxaaba ba Allah la rek xam na tey jur lu koy def tey gaaf yàlla lu koy def tey gox yàlla lu koy def ak lu ko def damay jaar yàlla yooyu lu am njëriñ su fekkee kon na ma baaxul woon yaakaar nañ ne man nañ ni daa am taw kuy wax rek jëm kaw danga koy teel a kon xaar kon loolu day gër day gën suuf si lii bu baax la walaay ñu tax walaay kon soo demee ne ci suuf si day tuur rek yéen a ko def nga mu kay ndax moo war a yéen léegi di fas fas nit ñi jaawal fas lu solo yàgg ndax mooy yenn li nga xam ne lépp mooy gaaw yàlla yi nga xam ne moom gis ci kaw te fas fas mooy fas bi mu xaw ginnaaw boo xam ne borom bi defal ñu ko ci kon waxtaanoo ci laa ilaha illa allah mooy lan ak lan ko jël lan xëy ak lan mooy tos laa ilaha illa allah comme mu amee mbir yi lan la mbokk yi xam ngeen dafa mbir yoo xam ne jaaree ci jàppam sës na bu jàppuwaa bu jibee am mbir dafa mbir yoo xam ne yi bu la jaaree sa laa ilaha illa allah sës na boobu yéen a laa dugg wala jaamu yàlla wala jaamu kon tey ñu ngi tàmbali tomb yooyu nga xam ni dafay kat laa ilaha illa allah dinaa ko tuddee ay jën waaye kaw mi ñaan nee noo mooy ak baru naa si ba ci bi nga xam ne mooy kat laa ilaha illa allah ba ci jógee mooy ashirk billahi alazim ñu bokkaale yàlla subhanahu wa taala mbokk yi bokkaale yàlla mooy lan lan dëgg dëgg xam na lan la bokkaale yàlla est-ce que xam nañ bay taari moo nekk bokkaale yàlla subhanahu wa taala dégg doomu aadama yi am na ñoo xam ne ñu ay hakim mooy boo xam ne xëy ñun nag la ñu tuddee xëy mooy waa joo xam ne day wax ay wax yu yomb lañu wax waaye dégg dégg ci nga xam ne borom ko dara dafa koy bëgg ñu ko laaj ak ko am ñu ko maan dégg ko nga xam ne yàlla moo ko séedee ñu wax xikma wala qad aatayna lukman xikma li ñu tuddee xëy li ñu tuddee xëy yàlla mu ngi naan ko xool ci nga xam ne mooy Luqmaan su borom bi ñun yàlla dañu war a doxal Luqmaan li ñu tuddee xikma ani skulillah ah loolu dañ daa jàng bu sant yàlla képp ku sant nag nga xam ni sa bopp rek nga koy defal ndax yàlla dana la doon waaye ku wéet ba sant ko kooku ne la yëg ni loola day maanaam bu tudd rek nga koy jël te yàlla dina ko waxal moom Luqman dafa toog ak baabam di ko yàq umma mooy dëgg bu ñu yàqee daf dana defal baala rek ndax demal baala la déedéet ndax kay jàng la déedéet ndax kay dugal école déedéet ndax bu sell la xam nga mooy dañ ñu gën a baal nit ñi mooy ñi tàmbalee ci seen bopp seen seen baax dëgg la li wax bu baax la waaye bu mu ko loolu ay liggéey yëpp ci kaw li koy tàmbalee mooy jiw yooyu ñu dana dem boo déggee ay mag yu waxtaan dañuy génn ñi dëkk la ñu koy yaay baax waaye yooyu daa am ñu ci ah booy nangu leen nangu lay doon dëkk la ñu wax baax waaye nangu ko dëkk xool lu ko mën a ko mooy ko xaaral lu ko mën a dëkk boo yaay ko laa ko nekk laa ko suñu dëkk la kii la suñu ko mën a Allah ñu ñu ci ci dara baax wala nga xam ne moom kenn du ko fa te lu ko mën a tàmbalee yaa ngi lay yëngee sama bopp laa sikkil la du bokkaale yàlla ak dara inna shirka bokkaale wa dulmun azim kon su la yëngee allahu akbar lii wax di jiitu na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon tey xarit bi dafay nàmp dara du bokkaale yàlla ba tey wéy la ko yëgee ay mbir yoo xam ne bokkaale yàlla yu mag la xarit bi ko gis ay mbir yoo xam ne bokkaale yàlla yu mag la xarit bi ko gis mu naan ko dara ci maa ngi bari wallaahi lii moom daal di bëgg ko dund daal di parce que da ngay ko xam koy waar soxna si waar di lool di ko bindi ci bopp daal yàlla ba maa ngi àndal ci sëriñ nekk ay wéy doon ko xool te dañ ko naan ko ci bopp daal yàlla da ngay ko xam ne mën nga ñëw ak ci ko bopp daal xol léegi dafa ko bu bokkaale yàlla inna sirka la ko xol bu la yéene nekk wax naa def sa réew si mu ne ko sunu bàtt woo fay na ni daana di waale léegi xas naa léegi nag ñoo ko dégg si si dara dina si si ay wér lan ko ngay door a jullee waa sax àggal yi ay jëlee waaye loolu ji mooy laata sa si la bu bokkaale yàlla subhanahu wa taala ndax bokkaale nag la kullu mun aqiim la kullu mun aqiim mu soog di mag la soog di kon loolu lay lan mooy bokkaale yàlla xaaral bokkaale la nga lu muy ci ndox mi am na ci gën a téemale ko loolu xaaral lay gis ne jéeg bi muy dégg ci ndox mi dafa def dafa oyof dafa bëri lool ñu koy def léeg-léeg yéen ci sàngal nan nga ko def bokkaale léegi ci bëri ma laaw ba ko ngeen gis wax na allahu akbar wallahi fekk mu ngi taxaw ci góor ci subaar di di bëri ko ko daal di leen ko leen wax mu wàcc ko lépp lépp li nga xam bokkaale yàlla sax ñeneen bokkaale mu yàlla la defee parce que inna shaytan la bëgg xam déglu xarit yi yéen tal gi nee na sallallahu alayhi wa sallam képp fa dallaay allah yéen lu tolloog duusi géej gi lu tolloog kenn suuf yi ay bàkkaar saay saay yaaloo sàcc na fàttumal la bon la lekk la lu ko yàlla deroon mu lekk ko def na ci ay xeeti bokkaale ay xeeti bàkkaar bu rëy léegi liñ yàlla dafa dalee yàlla def ci ay xeeti bàkkaar bu rëy te bari dañ nag dañ koy moom ak ñu boole woon ci kaw suuf yéen yàlla nee na yàlla nee na dalee ci man da lu gis xolam gis ma sa dara ci bokkaale yàlla aduma suuf dal ba lu baax Allah mbokk yi ak bokkaale ba ci yàlla mooy baax bi rafet wax ci moom waaw li nga xam mooy que yàlla bokkaale wu ñu yàlla def na xel soo ko bu xëy. lépp lu yàlla di kaw ay yàlla man kay yàlla wala yow man ñu naan ñu ne saa yàlla la koy wut. wax dëgg yàlla nii ku ba léegi yàlla di bokkaale wala dara loo gis ay bàkkaar wax ko fa la dégg. mbokk yi bokkaale ma leen. bokkaale sàkk aar mooy mbir moo xam ni kenn na ko waral moom ñu ne ah kii dañ ko jënd ma tàmba ak kéema ñoom ñaar ñoo ko bokk. moo tax ba léegi alquran ba xaw a soxla kilimaan di leen dara Moussa di ñaan di ñaan bu mag di tàkk yàlla lu ko suñu jubal suñu tawaram bi amri mu ni wa ashrikhu ashrikhu ñu bàyyi ko mu ni wa ashrikhu boole fi amri sama yére maanaam boole ko moom def ko yeneen def ko yeneen xam yéen si yàlla Moussa moo ñaan yàlla yàlla ko jëm si biir ko jëm si borom ba ko waaye ñu ko waxal si ku fi am ni dégg ko jëm si comme man ngeen ñu bokk mbir mi ndax bu kenn nag wax ni ñaar ko daa wax ñu dëgg ko bokk ñu dóor kay fa nekk katira wala ko ne katira ndax ñu mën a am doole li nga ko koy wax kon bokkaale yàlla mooy jël lu kenn waral ko di fexe ko moom la ko ñaar wala moom la ko def waaye sax sharia bokkaale yàlla mooy nit ci jël ak nit ku dul yàlla wala leneen lu dul yàlla ak lu mu mën a doon ak fu mu mën a doon ñu génne ko yàlla subhanahu wa taala jox ko ci ñi ko yàlla di ko réew ragal di ne ragal yàlla di ko yaakaar yaakaar di war a yaakaar yàlla ko dimbali ko dimbali ko di war ko yàlla di tax ci moom tamit aada ci loo xam ne yàlla rek la ko a di ko topp te lañ koy wax ay mooy yàlla la waaye di ko lekk topp ci loo xam ne loolu la su borom digal nañ ko topp ah su boobaa nag mbokk yi ak bokkaale gi tëdd mu wutal ko yàlla su borom subhanahu wa taala dafa am lu gën a ci yàlla subhanahu wa taala te mbokk yi bokkaale yàlla ci xel rek wallahi ci ci ci xam ngeen mbokk yi daal benn waaye mi ngi wax la ko di toll di loolu mu loolu daa am xam nga yëg ni mu ñëw ci yàlla mu ngi dalal laal ñaan bi ñu ko bëgg a dugg ci ñaari tànn ci kaw yi di leen topp ba ñu koy topp di ko xam ñu naan bu ñu dem ñu dem oto yàq ko nag ndaw la léegi ba yaa yoon te ñu ko benn xarit boo xam doxam ba yegg kon ko ñoo ñu ne naan ñaan jabar ñaan sax sa waay maa yow kay moom daal di ba andi su ma fa naan ah su ma war na def yaakaar ku la xam benn waay daal di ko fa daal di ko ci beneen waay bi ngeen ko def bu baax daal di déglu waaye yow sa bopp kat léegi da ngay wax ne ko war a liggéey su ko baax ngay def ñu ko xam ne sama man ci ma tax waaye ñu ñaar yàlla di yow waaye yow koy moom lépp loo xam ne yaayee ci moom doomu aadama bu liggéey ñu tuddee ko bëgg ko bokk ak yow tuddee ñu wax ko waaw lu tax nag yàlla subhanahu wa taala maa ngi lay amul ne amul ñu waal bëgg la kenn kenn bëgg la moom lan moo tax liggéey bi li nga xam ni moo ko waral ñu jël ay di ko bokkaale ñoom wallaahi lii yaa ngi ko waral ñu ji kàddu gi du jël kàddu gi du jël ak ñàkk xalaat man moo ay liggéey moom bokkaale yàlla mbokk yi ñaari xaaj la comme ni ko borom xam-xam yi leeral am na ngeen xaaj bu ñu tuddee shirkul akbar bokkaale yàlla bu mag boobu képp ku ku ca dee ci lu amul te boo daanee dara mën na maa def ak doo génn am na ren bii de surtout akbar te bii may wax ni surtout akbar day génn ci lislaam ñu di ñu ne ni yii mooy bokkaale yu mag yi képp ku ko def laa ilaaha illa Allah xam ne bokkaale ak yàlla la waaye génn nga ci lislaam tey boo baax mën nga daal di tawal te boo ko daal di mën a baax xam nga léeg-léeg bu ñuy tuddee bokkaale bu ndaw kooku la borom xam-xam wax ni bokkaale yoo xam ne bokkaale dëgg la waaye yoon la mu lay yóbbu ci bokkaale bu mag waaye du tax borom génn ci lislaam ci yenn ci baax yooyu yëpp incha allah daañu ko leeral su ëpp la dina ci ñëw suñu borom subhanahu wa taala di wax alquran ci wane bokkaale yàlla ni muy yéete yàlla mu wa man yushrik billah képp ku wutal yàlla xol ku bokkaale yàlla ci lenn wala dara faqad iftara isman aziman kooku day fent na sos na bàkkaar bu mag boo xam ne fu mu ko defee rek moo ko fu mu ko defee xool bi inna allaha tabar yàlla laa yagfir di jégale ko dégg allahu akbar lii may daal boobu alquran mi ngi tuuti misaal saa bi yàlla day tuutee jigéen sunu borom inna allaha seen borom yàlla laa yagfir di laa ñaar yéen di jéggalu di jéggalu ak boo war a ak boo war a àndal laa yor di jéggalu ay yëngu la ak yëngu boo xam ne parce que boo ko mooy maanaam bu gën a nga ne ko jaaree sàcc yeeg yi nga xam ne boo leen jàppee garaaw bu mën a fi aale ak buur ci yéen tey de ñuy bëtti bëtti bëri ko suuf ci àll yi ci ko tëkkalaa ci boole dama loola moo gën a xayma boo xam ne wallaahi képp koo lu gën a jëm bokkaale yàlla bokkaale yàlla la gën a gaaw dama ne képp sa yaay bi nga gis ne daawoo ko moom bi nga ko bàkkaar bu rëy la waaye bokkaale la gën a rëy alba am na koo xam ne boo ko waxee lu ci ci ma ci gën ko dara rëy waaye boo nee bokkaale la day gàtt daal li ko ñu mën a noppi yàlla te ci ne loo xam ci luy rëy ci bàkkaar ci ci sooyee yàlla bokkaale la gën a rëy est ce que ñu xam ne ko su borom laa yàq ñu jéggalu ay yusuf ak ay yusuf waxtaan. yéen a ngi ciy def ba xaaral yu bëri su naa yëngu ba yàqu suñu mën a déglu daal de mën na kaa baale ba yusuf ak soxla wala dina baale léegi bu ko soxee mën ngaa dajee moom yooyu ay bàkkaar yu bëri fan nga xam ci koo xam ne xëy na téeméeri bàkkaar yu maa ngi koy jàng ñuy wax mu dolli leneen muy téeméer ak ay jàll su ko man la am waa joo xam ne foofu borom moom mi def li daal foofu moom la ñuy joxe joxe mu dee li waa sara mu ko la def ko dóor sànni de xaaj bi di jéere bi xaaj bi di daw la te géej ga ban defee loola mu nekk day yàlla subhanahu wa taala su borom ko lii war na ko ala xam bu wala ay yow boo wàllu lay xamee su borom taala ah dara loolu la ko ko dugal aade kon la ay nit waaye bokkaale yàlla moom yeneen su ko ñu ko leer rek alquran wax ko mooy yàlla ko baax ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء yàlla na jéggal du bokkaale bu ko soxla su ko subhanahu wa taala bi muy lim yeneen yàlla yi ak xool ak yeneen yi mën yeneen yàlla yi ñoom ñoo ñoom Ibrahim ñoom ñëpp suñu baax bi walaw annahu nit ñi bu ñu xaajaloon ñoom yeneen yàlla yi ba bokkaale yàlla la xabita anhum danaan màkk man yàlla maa yàlla yàlla la ñu doon yëpp loolu suuf bu dana am allahu akbar kenn ku teewul ci sa bët koo yaakaar ne mën naa bokkaale yàlla yàlla baal yéen a ngi nee ma dimbali koo mën a bokkal dafa war a am yéen a suuf la laata sa dafa am yéen am yéen a suuf la su ma la war a am yéen a laa bu ñu bokkaale woon yàlla ak lu mu tuuti tuuti la xarifa anhu yàlla dana màgg ma kaa ñu amal mooy lu mu su ma la xool yéen a sallallahu alayhi wa sallam xool yéen ak ni mu amee ak ni mu naan ak li ko yàlla may may ko benn yërëm ci yërëm yi suñu borom ñu walaqad uuhiya ilayk wa ila alladina min qablik la in ashrakta la yaxbatanna amaluk wa takunanna min alxaasirin ay Muhammad moo tàggale ko bokkaale yàlla li nga def lépp yàlla na ko màgg kandi ko ci Allah la lay gay subhanallah kenn nga xam ni kuy baax ko dana sax li wala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko ko wax na ko yàlla li ñu ko bokkaale yàlla seen baax la yëpp ma est ce que laaj boobu laaj mooy laaj boobu ci laaj xam naa ne bokkaale yàlla wala déet suñu war a koy wax ci suuratul Maa'ida yàlla mu ne laqad kafara alladina qaalu inna allaha huwa almasihu ibnu maryam ñi nga xam ne ñoom nee nañ ay saa doomi Maryam te mooy yàlla taala allahu an dalika uluwwan kabira loolu dina xam parce que weekoo na ca nekk ay saa ak jéem si waa laa taxawal suuf si bu mag la bu rëy la yàlla bu ñëwee rek la yàlla su borom yi te wa xaaral la ngir yaa bani Israil mooy Aïcha di soxla see wa bani Israil ko abdullah jaamu ne yàlla rabbi yàlla mi sama borom wala fa ko gisee borom innahu da ngeen xam ni man yushrik billahi mu tàggat mu bokkaale yàlla faqad harrama allahu alayhi janna yàlla araamal ci moom àjjana Allah di Isa Rasulullah. Kepada yang Allah Allah alaihi jannah yang aman dan muhayyid. Wa maqamunna bisawalika. Mabdi yang aman dan muhayyid. Jilmu sawalika. Nak yang aman dan muhayyid sawalika. Wa yaqamu qadiwa. Tak boleh wanita dan jilan lainnya. Bahaya kita jangan dalam luar dari wanita di sini di sini. xaraam na ci yow dugg àjjana xamal ne moom xamal naa soxla bi xamal ne soxla bi ne tooñkat yi ñu am ñenn ñoo tooñ leen moom ñu ngi koy yàlla moom di ko bokkaale mais am solo ne ñu dem seen dimbal yàlla ak yow xaar yi ngay yoo xam ne su ko xamal na seen lu bari su wax ci suuf yëpp yàlla day sallallahu alayhi wa alihi wa sallam képp koo xam ne def na ci ay bàkkaar lu mu bari bari bari bari mu dajeeg yàlla yàlla xool ak xolam bokkaale amul amaana bu soobee ci borom na ko baal waaye baal moo da yoon ak yàlla ak juróom ci junni ak ak ci milliards yoo xam ne saraxee ko ci sabilillah ak kaari yoo jàng ak ak ak yére yi ci ay wàll ci ay ci ay saxaw yàlla te fekk mën naa bokkaale yàlla dara damay ko ko li li tegtal bi mooy nga xam ne dara ak ñu mën a am ku ne yéen a bëri ko bàkkaar boo xam ne du ko àttan kon nag bokkaale yàlla ginnaaw bi nga xam ne mooy wutal yàlla la borom ci anam bi moo ko leeralee ci gën a gàttal kañ la bokkaale commencé am ci kaw suuf mbokk yi jeexu gannaaw li ne la taariku yuidu nafsa jeexu gannaaw xam ak am solo nga gën a gis wala day wax ne ku dem ba xamoo fa jëm da ngay jël fa ci woon jeexu gannaaw bàyyi ñu am Sénégal bàyyi ñeel Amérique bàyyi ñeel si àddina bi yëpp maam ñeel ay kër dana yenn ay jéeg ci ginnaaw nga dem yàlla bi yàlla wàcce laa aadama ci kaw suuf yàlla dañ ko yóbbal waaye xam-xam moo fi amoon aadama suñu baal ñeent ci doom yi ay jeeg ñoom ñëpp ñëpp ci kaw suuf ñu takkante seet bi juddu woon daaw mooy nag seet seet bi juddu woon daaw bu góor mooy jël seet bi juddu woon ren ci nekk jigéen ñoom ñaar ñoo takkante ñu ne moom yàgg yàlla déedéet koo bokkal benn mbéy mi nga xamante ñu ne moom yàgg ñuy déedéet koo bokkal benn aada mi nga xamante ñu ne moom yàgg ah, aada commencé wala aada aada ba baax la ko déedéet ndax yàlla moom xam naa wala aada daw ko fi lu mat ñaar fukki teeg wala fukki teeg diggante moom ak aada ma dox la yoo xam ni bokkaale na Allah bokkaale na yàlla rek la doon féete yàlla rek la doon gaam yàlla rek la ñu yaakaar ci yàlla rek la ñu dimbali ci yàlla rek la ñu ji ñu ngi nekk yàlla déglu li nga wax bu baax li nga wax xam-xam la li ko lay wax képp ku laaj affaire yi li nga wax xam-xam la borom bi subhanahu wa taala leen war ak jamono mu am ay jaami yàlla yu baax te day nekk ci sóotu bu wal suwa yawut yawut ak nag ñu ne ko mooy jaami yàlla yu baax lu rafet yàlla ñu góorgóorlu ñu topp yàlla ñu dëkk àdduna ñu liggéey yàlla ci kaw seen àll. ñooñu daal di koy faal ñu faatoo seytaane bi yàlla moom kat comme moo topp aadama su nekk nii occasion la doon xaar ku ci teg ni ñu ngi laal occasion amul ko ndax aadama daal di koy te dëgg daal di ko yàlla dina ko waxee muy naa may la aadama faal ndax yàlla lu muy mujj ci ñëw rek nit ñi di gën a fayal. émi daal di ñëw ñu waaw yéen lan ngeen xalaat wala ñu ne ñu ngi ñu ngi wax ne ci kenn wala yéen bu ngeen xalaat ci sëriñ wax sëriñ Tuubaa sëriñ Yahud sëriñ Yahud sëriñ nag lu ngeen xalaat ñoom ah da ngeen xalaat nit ñu baaxee nii ñu gën yàlla nii ngeen sax leen suul ñu leen baax leen leen ah yéen naa ci leen wax Allah mbokk yi xoolal suuf si ñu tànn digg bu baax daal di wax ba ñu def seytaane wax ñu ne ñii leen daal ñii comme ñu baaxoon leen te yéen wóor nañu ñu koy xool bàtt ko yàlla da ngeen defal benn monument jàkka bi ne da ngeen fa defal benn étage di ngeen leen wax day yàggu day yàggu day lakk day suwaan étage yooyu su ngeen ko tegee ci jàkka yi saa bu ngeen ñëwee jaamu yàlla ci jàkka yi bu ngeen ko xoolee rek seen xel day dem ci wàllu mën a bopp yàlla yi su ko defee dina la xam loolu baax na la xam xalaat ci yéen li ñu xalaat baax waaye yéen ñu ko xool dinaa yor koo xam ne dañuy yéen dañuy séen ndaw tënk dañoo jeexal di ko leen am métier la koy liggéeyam kese boobu moo wax mu àndal daal sawar ñu xam ngeen ne kii bu xaaral la ci dañuy def soo ko gis naa ci parce que xam nga ñu jógee la ñu ngi leen a yàqal waaye comme moom dañuy tudd ba ba laa ira la def laaj ñu ko góorgóorloo ak génération bi nga ñëw koo xam ni ñoom dina leen mën a feeg ba jaamu loolu seen kii billahi alladi la ilaha illa hu su ma génnee ci mbedd mi gis ñu ni takk ay gëtt ay photo sëriñ ay nangam wallahi dama ci wallahi rabbil alamin dama ci li ma jiit mooy état bi du mel ni jël seen bàq jaar ñu amul problème boobu c'est pas le même problème sax waaye su ma dem tuuti def tuuti ca kanam maanaam li mel ni sama dama def ko baax du ma ko nekk waaye def tuuti ca kanam wallahi seytaane mën naa dikkal nit ñi gis nga sëriñ si ñuy laaj nekk état ka nangam mooy lii kii si dee dañ koo yàqal dëgg rek di waxaale ko ko dee moo am dee kaw yi nekk loolu rek la bu di nekk jaamu leen ñii ndax ñii kat ñoo doon sëriñ diw sëriñ diw sëriñ diw seytaane di loolu amee saa yi ëpp loolu dëgg état yi mu ne ah ñii kat ñu baax la saa yi commencé saa bu ñu leen xoolee leen fàttali topp yàlla te pare koo ay seeti génération moo baax génération bi ñu génn est ce que fekkee leen ba ñu tabax économie déedéet seetaan di kër leen mu ah yéen yéen a ko defal yéen sëriñ si nii ngeen leen laa bàyyi nii rek ngeen xool rek est ce que xam ngeen seen maam yi wax ñu tabaxoon ko ñu ne déedéet ñu ne kii mooy kii mooy yàlla si ñu tuddee wan kee mooy yàlla si ñu tuddee tuwa kii mooy yàlla si ñu tuddee yahud kee mooy yàlla si ñu tuddee nasa am na ñoom ñu leen def seetaan di leen leen yàgg na di ci kàcc ndax defal na baax aadama wax ah sama bu ma bi bëru ndeysaan xam nga Moussa dañu yedd aadama ñu ko aadama yow liñ nekk lépp yaa ko def ndax dañoo duggoon xaalis woo ñu woo ngeen ñaan na leen Moussa moom Moussa dugg dëgg moo ko la aadama aadama ni Moussa yaa ko def naka nga may yeggee man aadama ci boo xam ne yàlla bind na mu jiit sax ba am lu ma xam ngeen daal di mën a fi aadama lay kon li nga xamante ni mu ngi wax la ko daal na laa doon aar aar amul lu si yaakaar ne wax billaay la fekk day gàcc aar amul ko doon et puis ko billaay lii ma yor muy leen wa aar amuma dina leen bi nguur ak naa mu ne ini la ko daal ñu naan ko la laaj leen ko maa ngi ko aar ko aar jàppale leen kenn wax billaay ko maa ngi ko kon aar ko di ko di ko di ko ko wax ndax amul ko gën a billaay ko wax billaay léegi ñun ñii kat suñu ko xasee day xool dañuy gis ku gën yàlla ci ñu koy wax su ko defee lu kaw te ba ko naan la ñaan ko yàlla dundu ko leen xamal yàggul bu ñu xalaat am ngeen di def jéem xool wala nga xam ne ci ma doon ñëw dañuy yàlla di def waxtaane ko waxtaane ko ñu yéeg koo ko ne daal ku dul yàlla wala jox seen yàlla tey ku dul yàlla loolu loolu loolu mooy suuf si waaw dégg nga ñu xam ko junni at yi maa ngi ñëw di leen waa gars yi di leen wax suñu wax ñu baax na ko ko waa ko waa la yàlla la yabal ko waa muy wax moom la xam ne dafa doon ànd ak waa ñu baax léegi ñu baax ko wax nañ ci naan léegi mokkaale amaan xam ne kenn mokkaale commencé amaan ci dama leen di baax baax di ñu baax la ci dama leen baax yi gars yi ñu doon xool asamaan ci biir liggéey bi boo déggee sëñ bi jaamu xalaat bi jaamu ay jërëm nekk yu ñëw waaye comme ni ñu amal di jubal ne noonu la ko yéeral ne noonu la ko bii dem bii bii daal di dem bii la yoo bii la yoo bii la bii la ñu daal koy jaamu xam ne yàlla la yoo loolu am na tubaab yi su loolu bu ñu dee weer bi day kii muy xam yàlla ñu ko waxee ne weer bi nag Ibrahima daal ko laaj yi ma yàlla di yoo fii ma ko முகமது வியாபாரத்தின் தான் கொண்டோடு இவர்களுடைய நோயாளர் சமூகங்கள் பலமான يا إخوان الإسلام ويا لكم والإسلام على الإيمان def nañ malaaka yi wala weer ak jiwu am nañ sa kaw ci kaw ci te ba léegi am nañ sa mbuur te ku la jiwu nangam bu baaxee mu doon yële gis nga koo koy war a mën a lu tax kon laa ñu la ko baax lu tax dafa ay baax ak ñuy dara lii mooy na koo xam ne ah bu ñu tànn maa ngi def jiwu kooku day war a mën a mën a mën a kuy liggéey ci borom xam-xam wala ku dul wala ku muy xamal ci àddina bi ñu laaj ci borom subhanahu wa taala loolu yéen yàlla di wax ni bàyyi ko ko jaay ko xëyal Ibrahima bàyyi na yëpp këram bu xëyee woon ba ñu ëpp ñu ne ñu maa ko teel na war naa ko jaarale day jaaree këram loolu yéen yàlla Ibrahima nekk mooy bu dëgër bu am pas-pas Ibrahima yi nga xam ne dañoo ñëw ba ñu naan bu ñu bu ñu ko jaay ko yokku ko yokku ko da ngay doon waaye ko dee. lii di waa lépp di moom moom mooy seen lii jaay rek lay def. yéen yi waa man kàddu ñu jaay ko loo xam boo ko yëngu ko da ngay doon waaye ko dee lépp di waa. waaye daal du du mu dee. waa waa ñu ngi ci daal moom daal di daal. lu la xam ngeen daal ko balaa nga jël ko daal jël ko ci daal. ñu daal di ko waaye bu baax daal li ma lim kàddu yi ak kàddu yi la teel def naa leen ci biir mooy kaay ma jaay la loo xam ni baaxul ci sa lu baaxul ci sa léegi nii nga ne jaay loolu aw seen kàddu moo tax man dina jàpp ko dina jàpp dara waaye dina jàpp parce que sàmm la li mu ne waaye gerte li mu ne jaay la lay lor ñu dëgg sargoo yi ngeen boo déggee sargoo publicité bi ngeen ministre naan ministre bi ngeen ko yàlla ko dugg la te te mu da ngay yor ñu dëgg sarg bi mooy ngay def suuf ngeen nii kat dafa dara ci na taal nga ne waaw am na solo ko ma ko def na waaw mooy daal na te wala ñu ci ñu ko ñu

ذكرت فقلبوا عليهم قلبهم أطاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فتوبوا إلى الله جميعا بمعنى بإيمان مؤمنين أن الرسول العظيم يجيكم جد لقلبك اذهب إلى القبوريين يعني يا رسول الله ذكر الإسلام يفتح لك يا رسول يجيب لك يجيب لك هذا هذا هذا léegi waaw mais suñu bokkaale béy yi dañ naan dañu daal di gàllankoor ci ormaan période bi wépp ko ndax gëm yi ci yàlla la jox ko jël di ko yàlla baaxal yi ah bu amoon na bi ñu ne seen war naa nekk waaw période la kon seen war na ko ko jaar na ñu commencé jàpp ne ah ñu dem jaar ko ko war ñu jee waaye dañuy jaar ko fa ko yàlla et les bonhommes de la waaye ko ay nekk tout ça di lawe et les di wax nit ñi ñii kat lan amul ay maqaamaat yàlla dañ koy am di di fàttali ko def. demal say dugg ci yàlla bu baax demal say dugg ci ay yeneen ay àll. والله الذي يعبدون تلك الأهواء كما يعبدون الأهواء dañuy jaamu àll bi comme ni jaamoo borom àll bi mu yàlla dañuy ko xam ne ma ngay ko àll teew nañ laay defal yàlla. waaw. fekk yonent bi arme yonent bi ci biir jàpp ji saxaaba yi ay buur la ko te bañ koy def saxaaba yi ko lan ko waaye nag buur la ko doon saxaaba yi léegi koo xam ne yàlla mu yéen dañu ko ci arme bi dañu ko léegi koo xam ne daal ne suuf bu mun a def saxaaba yi ak dama ne suuf bu mun a def saxaaba yi dañuy mun saxaaba yi ba wax bu ñaari yoon di nga wax dana daal dañu mun dañuy ba wax arme bi comme ni ñuy ba wax saxaaba yi léegi boo xam ne jiw bi amul baax bu ñëwee fii nga xam ne yow vraiment Allah da ngay def su ko defee ay taal ji bi maal taal yàlla ay laal jëlee ko fii ci biir bu dee waaw dama ci la jaaree mën na ko yéen ci sa lama yi la ak ni mu jee yàlla ni mu baaxee ci biir ak amul nag mu war a jëlee wala ñoom ko ci taal ñu ñaata yéen a dogal di ko dóor ak ñu dóor képp ku nekk xaaral yi moom kenn ku nekk ci biir xool yi ñu ci biir xool ak ndax ñaar ba mu ko doon rek ci dafa jaara ci mu faral ko ci sa xaaral ñu ko dóor mu ak doole leen la wala ci mu ne xam nga ngay ñu ko ñu la ci ko wala rek nga def ko ko dañuy yéen nga ñaar ñaar ko wala nga ko yéen ko wala rek nga mel ko mel rek xaaral ci wax wax ak moo yéen ci ay yéen ci lu ci wax da ko yéen dafa mu am yenn kër yenn saa yu jiitu lool waaye bu muy yëngal waaye yéen ci déwén dama ko ko xaaral te dama ko xam ne maa ngi lay di ci lu yëngu wallahi bu mu gënoon di baax lii gën di baax ak suñu yaay ak suñu bakkan bi nga xam ne des bu mu gën ma waaye nag dama ko doon si ba mu am bu mu gën si yàlla subhanahu wa ci biir dama ne am na yeneen mission yu war a yu leen wax ak yàlla bu ñu kenn di sal am na yeneen mission gis nga jadi hari itu orang beri ini Allah ya Allah beri ini Allah Allah beri ini dia akan diuji terkawal itu berikan dia mungkin ada apa ada semua mungkin ada jika ini Lalu mungkin sesuatu mari itu perkataan yang mungkin memahami Allah. Jika Allah orang yang bermain yang dimainkan, mereka yang sekolah yang berkuasa di sekolah Sebenarnya oleh Tuhan. Sungguh sebenarnya oleh Allah. Ini kalau dia mengulang sesuatu boleh kalau kita boleh. Lepas dalam Allah. Seperti inna lakum ayat Allah. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, boleh beriman. Jadi, boleh beriman. Walau tidak ada pun boleh beriman. Allah yang beriman adalah Allah. يتلو القضاء عليه والصلاة والسلام وصحبه وسلم. لكن يعني كل اليوم يطلع يقول لكن من قال ما تحتاج وكاي يقول يشيل الأيدي ما بين جسم على الدنيا يشيل على الأرض لكن هو قلبي وقال لي قلبي قلبي لا يملك الضوء. mooy naan mooy kii giraama mooy naan dara am na nekk ay nit ku baaxoo ñu góorgóorlu ñu leen soxal ay nit da ngay mën a dégg nag ba ba daay bi ba dee moom nag daa daa tukkoo ñoom ñu def alam mooy daal di dee waaw dañ tax salaamam daal di koy dëkk indiw bi mooy ñu koy indiw ko mu daal di koy waaye daal daal ñu yëpp ba xaw dañuy yow di ko loolu yëpp ci ko seen gàttal moom ko waral loolu am am ci ko amee lu gërëm leen di yàq rek ñu ñu tëddee day wàcce gërëm naa di ko wax yàlla ñu màgg ana def jàng moom ba ko balaa dara gërëm gërëm ko yàlla ko ko ko lay waaye ko waaye daal di gërëm ko la di ko la ko wala di ñu wala di wala di ñu wala di te yéen ko ñu ko ci day waaye xam ne yoon bi ko ñu waaw kana di ko ko daal ko xamul ko xam ko ko ko ko ko te bu may baaxoon te loolu baaxul te da ngay doon baaxoon yoo xam ne yooyu baax na ñu ko mën a defee yaa ngi leen ñu ko defee rek ñu dem te ñu ko defee rek am na yoo xam ne yoo xam ne nit ñi ñu xaar ko mbokk yi lii xaw ma ñu am waaye ak baax mi dañ koy ñaanal dañ koy ñaanal Allah ko taala xam nga ñaanal ko ñaanal yaa ngi yow ci yàlla maanaam ñaanal ko waaye dafa ñaanal subhanallah bu la ko waxee alhamdulillah saxaaba yi radiyallaahu anhum mooy ñaanal borom xam-xam yi rahmatullaahi alayhi mooy ñaanal kon mbokk yi faw ñu jël la seen xam ni bàmmee du jëriñ ku jëlal du jëriñ kooku amal na day day yaakaar ni nit ñi muy dund kon daal dund yéen si neer képp bisu àdduna bi loolu maa ngi wax si laa koy daal di ñu jël sa kaw bisu àdduna bu julli man yàlla dana yee ma xam ni jëm sàngal moo dund benn saxaaba ne ko yéen ñu doon wax ne kii naa ne xanaa fekk bu nekk da ngeen di laal mu ne ko déedéet suuf yàlla ku ne lay dee ba mu nekk laal am na loolu laa ne ko kii ma koy def ci ñoom ñoo doon dund mu ne ko ñaar ko dëkk ci seen kanam ngay ñaar ñaar ci ñoom ñaar la la ne ko waaw am na solo kon moom ne delluwaat ko xam ne bokkaale bi xeet yi nga xam ne mooy xeeti bokkaale yàlla ci gannaaw yooyu saa su ko jëlee ak ay mbir yoo xam ne yéen a baax ngay yéen koy def yooyu saa la ko leeral ak yi nga xam ne bu ko ci defee wala wax ko génn ci islam ak yi nga xam ne boo ko defee wala wax ko génn ci islam waaye du bëri loo xam ne bu ko wala ala ñu ñaan yàlla ko wala ci ko ci ak lu mën a am yàlla yàlla ko wala ci ko ci ak saa wax saa ci xeetal جرت نبي الشركاء قال الجمع في من هذا الأخير وينصر القاتلون ربنا لا تنسي حسن الله حسن على الناس ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه